يا أحمد الشيخ انظري لنا بهذا المنظر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر أقول راجيا دواما المدد من فعل شيخنا التجاه الأحمد أيها المستمعون الكرام المتابعون لنا أحيي كل منكم باسمه ولقبه وذاته بتلك تحية ميمونة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا أقول بقول شيخنا وخليفتنا مولانا حي محمد رضي الله عنه على تهنئته في هذا الشهر المبارك حقا للمولد الشريف التهاني وسرور به وحسن الأخاني نال ذا الكون منه وازداد حسنا لمحيا ربيعه النوراني حقا للكون أن يزيد ابتهاجا وسرورا به مدى الأزمان يا ربيع الزمان أهلا وسهلا لا منك نور كل زمان mbokk jullit yu tedd yi seen mbokkum jullit seen mbokkum taalibe imam Mouhamadul Bachir moo leen di nuyu nuyu lislaam ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ñaan nuyoo boobu li mu làmboo te mooy jàmm ak yërmande ak barke am nañu ko yàlla boole defal ñu ñëw ci daraja yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu ñi sant yàlla di ñaan mu jullit yi sayidul wujudi wa adami suhudi sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndax moom rek moom la julli ci moom waaye ginnaaw loolu ñu ngi leen di ndokkeel mbokk jullit yi comme ni ñu ko waxee léegi rek nga xam ne loolu moo daan baax sunu mag ñu baax ñi rawatina ki nga xam ne mooy xalifatul xaaj Muhammad Ñas radiyallahu anhu nga xam ne moom daan na faral su weeru mu commencé di bind ay xosaay di ci ndokkeel weer wi di ci ndokkeel jullit yi waaye di ci ndokkeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu it la ko mbooleem kilifa daan defee fii ci Sénégal kon tabaarakallaahu ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru rabiul awal nga xam ne weeru mbégte la weeru yërmande la weeru xewal la tabaarakallaahu ñi fas yéene ànd ak yéen rek comme niñ ko daan defee rek ci heure bu nekk ci seen émission bi di Az-Zikra tey nag waxtaan wi ah ku ne xam ne lenn rek la mën a doon muy mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi rek buur bi wala abdel ma ne waxtaan tey ci lu dul wala waxtaan ci lu dul yonent bi te loolu defe naa duñ ko xalaat kon tabarakallahu loolu mooy doon waxtaan tey ñu ngi jaajëfal sunu mbokk yu baax yi nekk ci liggéey bu am solo tabarakallahu di ci jiital DG Mouhamadul Muntafa ak ñoom buur ak ñoom Abdel ak tabarakallahu seen liggéey am na solo lool ñu leen di ñaanal yàlla mu doon daal taw kefal taysir di ñaanal jàmm mbooleem képp koo xam ne jullit nga rek ñu nga koy ñaanal waaye ñu koy ñaan ci àdduna yëpp ndax jàmm ci la lépp xaj am ñu ko yàlla defal bi ummati nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye mbokk yi comme ko waxee léegi waxtaan bi tey daan rek muy mawlit waxtaan la mooy gàmm ak kan mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu defee waxtaan wu dañ koy séddale ci ay ci njàkk nag mooy gàmm ak lan lan ci lan la ñuy ndax gàmmu am na ci lay ci lislaam ak ci phénomène bi ñu koy defee nii fii ci ak kan moo njëkk gàmmu ak gàmmu lan lañu ñu mën a kon waxtaan bi. incha allahu taala tey ci yooyu lañ koy teg incha allah su ko defee li ñuy tàmbale rek mooy gàmmu ab delbaatu gàmmu cosaan li li mu luy tekki mooy ab feet waaye nag ñi ko doon gën a mooy sunu mbokku séeréer yi ñoo ko daan gën di faral ci seeni xew yi nga xam ne dañ ko daan amal xam na dañ daan dajee def seen xeetu aada yooyu ci lañ ko daan ci lañ ko daan gën di utiliser te tabarakallah buñ demee ba lislaam dugg ci suñu réew mi yàlla indi lañ mag ñu baax ñu bëgg yonent bi nga xam na ñu bay ci toolu lislaam yu yaatu ñaan yàlla fayal ñu leen tey yoon bu leer ñoom la mag ñooñu nag ñoo ñëw xam ne jamono léegi lëj na jaxasoo na ba nit ñi yenn temps yi mënatuñ koo def ci daara yi boo defee ñu organiser bu baax ne ah léegi kat jot nañ dimbala nit ñi ci lañ organiser wu commencé di créer yenn programme yi di ko jàngale jàngale yonent bi alayhi salaatu bi bokk na ci programme boobu mooy gàmmu gi nga xamante ni tey moom la ñuy def mën loolu moo tax nag ñi daan ba jëmee jamono nit ñi commencé nag di utiliser baatu gàmmu ci xeetu yooyu ñu wax nga maa ngi dem ci gàmmoo ga boo booba loolu si jublu mooy nu muy dem ci fa ñuy waxtaanee diine di ba jàngale te moo yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon léegi baat bi doxalee nañ ko ca lañ ko gënoon a mimee wala ca loram ci sànq indi ko léegi ci li nga xam ne tey moom boo ko waxee xel yëpp day mooy dem fa ñu màggalee yonent bi alayhi salaatu wa salaam. gàmmu googu nag bu ko doon tekki jawaab mooy la dañaa al ixtifaal bi idhaari wala ixtifaal bi mawlid nabi wala nga ne al ijtimaa bi idhaaril farah wa suruuri fi mawlidin nabii sallallahu alayhi wa sallam mooy lan ab cérémonie wala def daje boo xam ne dañ fay dem ngir feeñal fa suñu contentement ci gane àdduna ak yonent bi alayhi salaatu wa waaye mbokk yi ndax loolu am na ci sidaay buñ ko mën a layee ci lislaam ne loolu dafa war ñu def ko comme que léegi dañoo toll ci jamono boo xam ne looy wax rek ko argumenté ba mu leer ndax léegi ñu tey toog na fenn kii ñu wax amul preuve ci alxuraan amul preuve ci sunna waaye loolu lépp tabaarakallahu incha allah lii ñi nga xam ne moom la ñuy suñu mag ñu baax ñu bàyyi lépp boo xoolee di ko gis ci alxuraan ak sunna suñu mag baax ñu kenn du ñoom ndax talu ñoon kon naa la léegi ne la moom mooy seen kontaante ci bi duggee nañu fi bi am alayhi ci alxuraan karim ndax alquran yàlla sunu borom wax na ci aaya ne bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu huwa xayru mimma yajmaun yàlla daf ne mbooleem daje yi ngeen di daje di ci kontaan di ci bëgg daje bi gën a yàlla ngeen bëgg ci mooy daje boo xam ne daje ngëneelu yàlla la daje yërmande yàlla rahmatullahi ak fadlullahi boobu ñu ko laajee ki nga ne mooy tarjumaan quran di ibnu abbas radiallahu anhu daf ne fadlullahi mooy xam-xam rahmatullahi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye mbokk yi fadlullahi bu dee mooy xam-xam xam-xam naka moo ko ëpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul ki nga xam ne mooy aynil maarif ak mooy jëmmi xam-xam loolu doyul yàlla na koy yaay jëmmi yërmande wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin kon ñaar yooyu yëpp da gis ne dafa daje ci yonent bi moo tax suñ mag ñu baax na ñoom dañoo far jël ñaar yëpp ne mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam fadlullahi rahmatullahi yëpp mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee nag yàlla da ne moo leen daje yi ngeen di def di ci bég bi ci gën a yee mooy boo xam ne fadlullahi rahmatullahi kon loolu mooy ci tere bi rek mooy gàmmu ndax gàmmu du yéen a loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam rek dañ fay jàngale ak i jàngale loolu am na cëslaay ci alquran karim comme ni koy waxee léegi waaye mbokk yi bu fekkee rek na gàmmu mooy dajee di feeñal mbégte ak kontaante ci biir loolu xañu ci benn bés bu ne dañ koy tënk ci benn bés wala ci ay weer wala ci ay heure déedéet ndax ëpp na loolu yàlla sunu borom moom moo njëkk a tagg yonent bi ñu koy tagg di ko màggal tënku ko ci bis waaye daf koo tënk ci dundam yëpp ndax dana ko la am la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahuun te yàlla ñëpp dañ ne wala borom xam-xam yi dëppoo nañ ne lépp loo na ne yàlla gën na ci xamal ne loolu yàlla da koy màggal te yàlla dafa gën ci yonent bi kon lu muy teg ci mooy yàlla day màggal yonent bi waaye màggalam boobu wa wax tënk ko ci heure tënk ko ci bis tënk ko ci semaine daf ne ko laa amruka ci sa dund rek laay gëj ci sa dund rek laay gëj di màggal di la màggal kon nga gis ne màggal yonent bi tënkul ci benn bis tënkul ci ay weer tënkul ci benn at kon nag ñun su fekkee nga xam ne jël nañ ko di ko tënk ci benn bis war nañ koo utal ay lay yu leer nañ te it am na lay ci alxuraan sunna ndax dañuy jàpp benn bis ne ci la ñu dajee ngir màggal bi alayhi salaatu wasalaam muy fukkeel baak ñaar ci weeru Rabiul Awwal su ko defee kon loolu it lu mat a bàyyi xel la ñu jéem bu leer. ndax comme ni ma ko waxee léegi waaye loolu boo xoolee euh, ki nga xam ne mooy yontu yàlla Yaxya di doon di Zakariya alayhi salaatu wasalaam yàlla nettali nañu ci alquran di wane ne bis bi nga xam ne ci la judd boobu am na ngëneel bu ci nekk ba tax ñu war koo màggal mu wax ci alquran ne wa salaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yub'ath hayya loolu doy mu indi ñeentu yàlla Aysa ne wassalaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubaatu hayya kon ñaari prophète yooyu ku ci bis bi nga juddu ngir wane na bis boobu bisab jàmm la waaye ñun buñ jëlee bisu yonent ak ñaar di ko màggal ak ya toog di bàkk yonent bi loolu génn ci jàmm toog di waxtaanee njàngale yonent loolu jëlu ci jàmm jël say jël say sa sa alal dépassé ko ci ci ci nit ñi pour ñuy lekk ak ñi ci aju loolu jëlu ci jàmm kon loolu it danañ ci mën a tayee wane ne bis buñ jàpp di ko màggal muy fukk fukki fan ak ñaar loolu it am na cëslaa ci alquran karim kon loolu wane na waaye mbokk yi ba tey niñ ko layee ci alxuraan mën nañ koo layee ci sunna ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam muslim nett nañ ci benn hadis na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na woor bi altine ñi laaj ko ko benn bis na ko lu tax woor mu daaka yawmu wulidtu fii mu bis boobu ci laa juddu ah loolu kan lu muy tegtal wane na fa ak jaamu yàlla bu bokkut ak ki nga xam ne miinoon na di ko def chaque jour loolu nag muy tegtal mooy wane ne kon bis bi am na ngëneel boo xamante ni jagoon na ko mooy bis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan woon ñi wax ko mën nañu bis o ci laa judd kon moom moom nekk màggal bisub juddoo alayhi salaatu wasalaam am na ngëneel am na yeneen masidaat yu ci nekk ay xusuusiyaat yoo xam ne. jagoon na ko lis mboolem bis bi comme ni xam ne mboolem anbiya yi nga xam ne yàlla tudd na seen judd yi seen bis yooyu noonu am na ay xusuusiyaat maanaam ay ngëneel yi nga xam ne jagoon na ko wala seen bis yi kon moo tax bis yooyu feet la war a doon yoo xamante ni dañ ko war a jàpp di ko feetoo comme ni ñu koy defee moo tax suñu bi baax ja suma suñu mag fi l xaatibatan chahrun bihi wulida al muxtaar fi l mu ne sa mbég sa sa sa sa sa contentement bi ci gën a foor war koo wane mooy bis bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gane jamono kon mu ndax parce que mooy feet bi gën a màgg ci mbooleem fecc alayhi na wasalaam soo ko waxee da nga déglu ne leetul xadri yi nangam fol korite ak weeru koor yooyu yëpp am nañ gëneel waaye budul woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam du ko boo demee ci téere bi ñu tudde bayaanal hukum ash-shar'i fi nabi mu ngi fay leeral yu mel noonu surtout laylatul qadr gi nga xam moom lay gën a ba béykat bi ko ci kaw laylatul mawlid mu ne laylatul qadr bi ngeen nu mën a am ak lu mu lay réeral mu ngi ko amee ci dara dara yàlla mu ne kullamaa lahu sharafun wa innama iktasabahu min alayhi wa sallam nee na lépp loo xam ne am nga sharaf am nga tedd nga xamal ne sa tedd nga googu yaa ngi ko amee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax lu tax bi su doon moom yii dara du ci ñëw lawlaahu maa kaanatil kaw is kaana aynan kamaa ndax mu ne bu doon ak moom kon kaw bi du am ba yi ci biir yëpp di kon moo tax bu di bu di yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku yemut ak benn guddi kooku ci xel rek jawtoon aajow sax yenn détail léegi su fekkee nga xam ne lay nañ ne màggal juddu yonent bi am na cëslaay ci alquran ak ci sunna dina am ñu taxaw ne waaw lu tax ñuy jàpp benn bis di ko màggal su boobaa loolu dafay mel ni dañuy roy nasaraan yi ndax ñoom dañoo ñëwoon jàpp benn bis di ko màggal ne seen yonent bi ci bis bii la juddoo te mooy le 24 décembre ba jàpp 31 ci la juddoo ñu koy màggal kon su boobaa ñoom dañ leen di nuru ci loolu. waaye loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo koy dajji ndax jàng nañ ci soyi xay yi mooy Buxaari ak Muslim yonent bi mu gàddaayee jógee Màkka dem Madinatul Munawwara dafa fekk yow di woor Ashura mu laaj leen lu tax ngeen di woor bis bi lan sabab. ñu ne ko ah dañ koy def ngir sant ci yàlla puisque bis bi ci la yàlla mucculoon sunu prophète bi Moussa alayhi salaatu wasalaam ba ko Firawna bëggee toroxam loolu moo tax ñu koy woo ci sant yàlla yonent bi ne ñun ñoo leen gën a yee ci Moussa kon nag dañ koy woo mu woor ko ba ca déwén mu ne leen su ma fi déwén fekkaatee sax danaa woor taasuwaa maanaam neuvième jour bi avant dixième bi loolu kon wane na ni lii wootu tax ñii lay naan dañuy nuru nuru nasaraan bi rek ndax yonent bi fekk na yahudi di woor Ashura mu ñëw ànd ci ak ñoom kon loolu lu muy tëdd mooy diine lépp loo xamante ne lu baax diine moo ko moom da koy jël keneen ku ko jël moom donte jiitu la ci diine sax xam ne loolu dañ cee gàllankoor waaye moom moo ko loolu yëpp diine la kon moo tax loolu amul lay. ba a taxaw ne buñ ko jële di ko màggal moom bis bi dafay nuru na ñun dañuy roy nasaraan yi ci jàpp jàpp bisab Iisaa bi ko màggal ne su ma la tënkalee ci gàttal màggal juddu gi na lay ci alquran jàpp bis bi fixé ko ko ci ci ci douzième jour bi mooy fukki fan ak ñaareel ba tey loolu it am na jëf laay ndax. mooy li ma la mujjee woon moom rek nga xam ne moom la ñu jàng alayhi salaatu wasalaam waaye léegi ginnaaw loolu mbokk yi màggal juddu yi ñun lan la ñu mën a apporter lan lañ ci mën a jëlee loolu it lu mot a bàyyi xel la ndax mbir comme lu ma koy faral di waxee mbir soo ko xamee dëgg dëgg dëgg si la lay gën a jëriñ ba nekk ci taxaw moom rek bokk na ci yooyu nga xamante ni mën nañu koo juróom moo màggal juddu yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy duxulul jannati bilaa iqaabin walaa hisaab képp o xam ne yaa ngi màggal di dugg yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamal ne loolu mën na laa jural texe àdduna ak àllaaxira te ëllëg doo bokk suñuy hisaab benn na da ngay ñëw rek ñu dugal la àjjana moo tax sëñ Tuubaa wax na ko ca téere ba ne képp koo xamante ne yaa ngi màggal bi dugg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na màggal boobu moo lay wamal jëmee la àjjana tanzimuhu bi sunnati yaquluna lil jannati lil jannati mu ne màggal juddu yonent bi tam mu tegee ci sunna loolu moo lay waxoon dugal aljanna wilaaya xaabi wala xisaab di ko topp ba naan ku ci dépassé dërëm sax yow mel na ni ku teewee mel na ni ku teewee xel ba dara am nga yow ku teewee xel ba dara ak lan mbokk yi bokk na ci yim ñu mën a jural mooy mucc wax naa ko léegi muccal ci safara nga am aljana bi laa xaajal wala isa waaye mbokk yi bépp boo xam ne yaa ngi koy jëf te ci bëgg yonent bi dafay nekk neen yàlla du compte jëf jooju waaye bu fekkee jëf bi dafa lalu ci kaw bëgg yonent bi jëf jooju yàlla mën na la cee jural daal. ñu ne jàngee siira dañuy nekk ne Abu Lahab kere bi nga xamante ni su way batu ñëw na bégal ko ne ko ah sa doomu mbokk mi sa doomu mbokk mi maanaam su soxnaas mbokk mi ki mu ëmboon yàlla dogal na am na doom bu góor dafa kontaan nee nañ ba bégal ko ne ko goreel naa la jamono li dox ba yàlla yónni yonent bi Abu Lahab taxaw wéddi ko du yonent bi wootee neen yàlla mu yónni moom moo njëkk a tontu ne ko tabal laka al-yawma ta'uutina tos ka dañu yàlla ndax lii moom nga yeewaay naan yàlla am yoon ci noonu la nekk gëmul yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba xëy dee jamono dox ba Abbas bi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi mooy tëdd gént Abu Lahab di waxal moom ñu koy mbugal mbugal yu métti mu ne ko noo def mu ne ko ah maa ngi ci mbugal mu métti mbugal mu métti waaye nag yéen wi kat leen nañ ci mu ne ko gis nga suñu doomu ci

bépp ci juddu gi yonent bi di ko fàttali kooku lu rëy sax am maanaam mënoon na sax mbégte bi ko mën a jural ëllëg yow mu xiyaat waaye mënoon na sax tamit xéwal gi nga xam ne yàlla mën na ko jafe fii ci àddina moo tax euh, Muhammad ibn Nasir ad-Dimashqi waxoon ci bay la ne iza kaana haada kaafiran jaa zannuhu bi tabat yadaahu fi jahimi muqaddada ata annahu fi yawmi l-ithnayni daa'ima tuqaffafu anhu li sururi bi ahmad فما ظن بالعبد الذي كان عمره bi ahmada masruran wa mata muwahida mu ne bu dee ab yéeféer boo xam ne yàlla ŋàññi na ko ci alquran mais toskare ñeel na abu lahab bu dee yéeféer boobu moom la ñuy dimbale di ko oyofalal mbugalam ndax bég gi mbégoon ci muhammad ker juddum waa kon naka jullit bi nga xamante ni moom dundal lépp da ko jeexal ci kontaan ci yonent bi jeexal ko topp yàlla kon kooku moom moo tax mbokk yi juddu yonent bi màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg ko kooku beneen affaire li ci nekk yëpp mën ko wax wax naa la ne bokk na ci rek muccal gi mu ne muccal ci safara nga xam ne àddina moom ko dugg bilaa iqaabi wala hisaab waaye bokk na ci yooyu ba tey ak injaa'u shujuuni mooy faju aajo waahiran wa baatinan faju aajo waahiran wa baatinan moo tax ma ma wax ci noonu ne nee na fa bi ta'zimi injaa suyuun nee na màggal bi du yonent bi loolu faju aajo moo ci nekk bu ne faju aajo nag mooy aajo yu biir yu biti yëpp boo màggalee yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek yàlla fajal loolu waaye bokk na ci yooyu mooy al amaan mooy sécurité bu ma sëkk sécurité bu ma sëkk yàlla mën na la ko cee ndax dañuy nettali boo demee ca xudul jabal ci téere maam Xalifa Ñas radiyallaahu anhu dañu ne nañ bu daan gàmmu dana ci daan nettali benn xisa mooy dafa am buur boo xam ne yàlla da ko nattu woon benn doom bu jigéen rek la am waaye yàlla dogali ci dëkk ba am koo xam ne moo ko gën a ñàkk benn fas rek la am yàlla dogal bis mu war fasam di jënd rek fas yu mam rek fekk doomu buur bi jëndoon na façon rajaan ko mbëkk ko mu dee kooku xam ngeen ne war naa am problème koo xam ne buur bi nee nañ moom la gën a bañ te moo gën a ci dëkk waaye buur bi benn doomu jigéen boobu rek yàlla ñu nga xam ne dañ ko sa jotaan sax nee na dañ koy génne muy woon ci dëkk bi doxam yow sa fas ñëw rey doomam nga xam ne yow yaay premièrement nee nañ ko defee buur bi mu ko yégee ci changement dem na conseil des ministres di dajale gars ku ci nekk mu lay laaj sa kii nan laa ko war a rayee gën a ñaaw ñii naan nañ ko siikal ak ñii naan euh, rendi ko ñii daggal cër cër par cër nu nekk rek ñu koy wax buur bi ne waa baax na ba ngeen waaye ji moom gars yi si dem nañ jàpp mënante indi mais nag bi ñuy ñëw nag moom moom mun naan moom moom waxoon xam naa moom dinaa dee waaye nag maa ngi mébét ne ay déwén ci heure bii su ma fi fekkoon dinaa bokk ci ñuy màggal juddu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii la ko maam Xalifa Ñas ñett la liggéey déwén ci heure bii su ma fekkoon dinaa bokk ci ñuy màggal juddu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii da koo fas ca kaw nee nañ biñ ko indee ba taxawal ci kanam buur bi ne ko tekki daal ñu tekki ko mu taxaw jàkkaarloo buur bi xool ko xool ko mu yàgg mu ne ko waxuma la dara baal moom waxuma ko waaye maanaam ban njeebar nga ma njeebar ba tax man tey jii nii mboolem luy doomu aadama yow laa ci gën a bëgg déedéet naa baal yu ma la baal mais loo ma ba tey jii mboolem luy doomu aadama yow laa ci gën a bëgg te yow laa gën a bañ njeebar boobu nag laay laaj na ma ko defee ak ku la ko ma xam waaye ñu ko njeebar defuma dara mu ne ko loolu mu duuru ko baal baal naa la lépp waaye loolu moom duuru ko baal man waxal rek waaye ñu ko ah ñu dem rek mu ne ko xalaatal rek waaye ja xalaat bi daal ne ko ah am na lu ma ko yaakaar de waaye mën naa bañ a doon doon sax buur bi ne ko lan mu ne ko ah bi may ñëw de bi may wax dem naa ba yàgg mu ne ah déwén ci heure bii su ma fi fekkoon danaa bokk ci ñuy màggal bi lu yëngu bi ma ko wuutee. pour mu ne ko ah yow de loolu moo la sauvé loolu moo la mucca buur bi yemul foofu dafa dugg ci néegam génnee fa wala tey ñu ay millions ñëw jox ko ne ko guddi googee ngay wax maa la jëndoo kee day waaw moo kii xoolal kuñ naroon a rey kuñ naroon a rey léegi mucc na rayatuñ ko waaye jaaral buur la bokk na ñu gën a riis ci dëkk loolu ko may fas gi mu fasan ci xolam mais déwén sama fi heure bi dinaa bokk ci ñu màggal bi ñu ngi wax bi salaatu wasalaam kon moo doon waxoon ñëw na dafay tax lii mi indi jaaw sujuud waaye li keneen waxoon ñëw na mooy ak lay jox sécurité bi ci nekk kon màggal juddu Yonent bi alayhi salaatu wasalaam njëriñ li la mën a apporter loolu yëpp lan la jot ci suuf boo demee ci sunu téere bu barke boobu bi Yawaaqil Faraa'id sunu sëriñ Mawlana Ajo na borom Daaru Salaam mu ngi ko fay wax ne wa tafatal xurru turran anna mawlidu xayru layaali ala itlaaqi nasihim teg na wa kulla man jadda lil mawludi yadimuhu fa fawsuhu bin nabi xayru munkatim képp koo xam yaa ngi def effort pour lan màggal juddu Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yow sa texe moo xam bu àdduna la wala bu àllaaxira kooku leer na ba kenn dootu ko mën a mu ne puisque guddi la boo xam ne mboolem borom xam-xam xurru bi ñu koy waxee tey mooy notable yi nga xam ne tey dañoo am baax dëgër ci xam-xam ñoom ñëpp dëppoo bi moo gën ci mboolem guddi yi ala itlaaqi nas ñoom ñëpp ku ci nekk wax nga ci te ci wax mooy ne guddi gi Yonent bi amut benn guddi. kon moo tax bu digg bii ci nekk ni yëpp man cee nekk alayhi salaatu wasalaam wa tafaaji noonu fa bi tax di ni amaanun bi dal a bi wa bushra atat bi an baaw maanaam màggal ko mën na la jox sécurité ren ba déwén ak mboolem mbégte yoo xamante ne yàlla moo koy xewlal ay jàmm bu ko defee kon ñi bañ a guddal ci tomb boobu rek comme que wax na yan la ñu mën a apporter ñi wax ci kayfiye bi maanaam fii ci Sénégal nuñ koy wala ci tout nuñ koy defee lan mooy gàmmu ñun nan lañ koy defee gàmmu ndax defin boobu it mën nañ koo lay ci alquran ak sunna lu mën a nekk la ab gàmmu buñ ko waxee mooy jénnu lii bokk na ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam te tagg yonent bi loolu yàlla moo ko njëkk boo demee ci suuratul najm yàlla tagg na ko yonent bay tagg ay bëtam cër par cër loolu day wa kaana fadlullahi alayka azim moo tax suñu maam bi baax ni Abbas Sall wax ko ca xasiidaan ba ne huwa allazi nasala alqur'ana yabdahu fa kaana yuhnihi an jamil madaayini nee na kii mooy ki nga xam ne alquran moo daan wàcc di ko tàgg alquran nag comme tàgg xanaa bu dëgg yàlla kuy daggati nag kenn sañu taxaw di critiqué loolu doyul waaye yonent bi ci boppam moom moo taxaw tàgg boppam du tàgg sax mën na ñëw tàgg wala du tàgg ndax kooku modeste ba moo taxaw ne ana sayyidu wala lu ñuy aadama may sang mbooleem bu yàlla wàcce si kaw suuf wal axirin man maay ki gën a tedd ci mbooleem ñu njëkk ak ñu mujj

xoolal beneen boobu te doon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog ci suuf nga taxaw ci kaw waaye loolu doy nee na dem na ba yonent jugee fi Aboubacar jugee fi Omar ñëw fekk bés saaba yi dajee ci jumaa ji ñu tàgg yonent bi comme ni ñu ko daan defee xam nga si naa wax ak tàngam la ñëw na leen na na na lii amu leen fenn fen ko mën a tegtaloo fu mën a layee lii def mi ah, ah, am am na dalil ci ci alquran ak sunna ne leen xasaar lu saabi taxaw na ko dalal yow ma lii daan nañ ko def ci kanam ku la gën daan ko def ci kanam koo xam ne moo la gën na mu gestu Abu Hurayra ko ne ko maa ngi waatal ci yàlla ndax yow daa moom seede loolu mu ne ko ah, kenn mënu ko jénne ci alquran ak sunna kon bu ñu ko defee ngeen la rek soo ko defoon rek man lu dara ñu kii loolu dafa bokk ci ñuy gàll mooy waaye beneen bi mooy la julli ci yonent bi def ay solawaat loolu yàlla ci moom moo ko njëkk a def inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi yàlla ak yonentam ñu ngi julli ak ak ak malaakaam ñu ngi julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon yéen ñi gëm julli ma la bu ko yàlla digle toog rek mais li ci nekk ci ay gëneel kenn xamul ñu toog wala jaaroo bokk ci nga xam ne dañ ko génne ci ñuy ci biir na ci yooyu xiraatul Qur'an jàng alquran te yooyu yëpp alquran la ñu wa salaam jàngal nit yonent bi alayhi salaatu wasalaam nan la doon dundee ak nan la doon doxalee ci diggante ay saxaaba ak njabootam te yooyu yëpp boo xoolee moom mooy ñi traité ci guddi gàmmu alayhi salaatu wasalaam bokk na ci yooyu ba tey infaaqu taam mooy di dépensé ñam waaw te dépensé ñam li ci yonent bi wax ci ay ngëneel bëri na lool kon boo xoolee yii yëpp bu ci nekk rek. mën nga ko génneel hadis wala nga génneel ko aaya ci alquran bi karim kon loolu rek tegtal na yi ñuy def ci gàmmu yi yëpp amul benn boo ci mën a kontu wala boo ci kontu tamit rek xamal ne nag boo teg sa daan yoon ba tey waaye mënul ba ne ko nekk soo ko defee kon yii yëpp mu wax la ne mooy gàmmu yëpp lu leer la waaye tamit am na ñoo nañu taxaw nekk d'accord nañ ci yëpp waaye jaxasoo nit ñi ak góor rek tax na mu xaaral maa ngi leen nangam nangam dama ci Kaaba ga tey bu ñuy wër Kaaba ga foofu dafa am heure bu ñu naan góor ñi ñuy wër jigéen ñi ñuy kon loolu du lay loolu du lay kon yii yëpp wax la boo xoolee lu leer la loo xam ne génn alxuraan ak sunna kon mawlidu nabi alayhi salaatu wasalaam kooku wa màggal màggal ko mu war la comme ni ma déparé woon ci aaya ba tax na kon dañ ko war a màggal nañ ko màggalee ci ñu tegu ci sunna comme ni ko sunna mu baax ñu tëralee woon ba ko màggalee ci ñu ñu neexee ndax su boobaa liñ ci doon utati sax duñ ñu ko ci amati waaye dañuy wëlbatiku sax am ci ay négatif moo tax moo la ala azimu laylal wilaadati isbatan ida lam yakun nahwa alaami andubi moo la nee na màggal leen juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mu jege ci suuf waxoon naa la ni léegi dara Sëñ Tuubaa wax na ko nee na na ngeen ko taqdimu ko bi sunnati yaquduna lil jannati màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mu tegee ci sunna loolu moo lay amal dugal la aljanna kon loolu lu wér waxaatoon na ci ay xasida ne mawliduhu mu'azzam mubarakun muxtaram تعظيمه ينحتم على ذوي التقدم تعظيمه بسنتي يقول لا للجنة بازدياد المنة لمخلص المعظم loolu Ahmadul Xalil moo ko tàggee yéen ci yàlla bi salaatu wasalaam kon ñu bañ a guddal rek lii ma wax la benn alquran sunna kon màggal bi ñu nga xam ne ñoo njëkk a màggal bi ñu yonent ko tuddee Malik Malikul Muwaffaq ñoom Abu Saïd ne kon mbir boo xam ne muy bokk ci euh, ñu judd woon ci cinquième siècle mu ngi jamono antoon nag ak euh, Salahuddin al nga xam ne lim liggéey ci diina ëmb kenn moom la demoon awante ak mboolem ban xam-xam bu ci mel ni ak ñeen moom moom njëkk a organisé def ko fekk bu mag yooyu gis nga borom xam-xam bi yëpp ñëpp teew bu ko defee ñuy tàggee nañ fi ñuy def ay salawaatu nag ñuy jàng alquran ñu dooroon ñoom bu ko set nee mu jigi sax euh, waxtaan ci ak borom xam-xam yi ba ñu bindoo ko ci ci alquran ak sunna wane na ko la mu gën leen cee encouragé gën leen cee jàpp gën leen cee téye kontaan bi lool moom Malicounda mu soxla moomu noonu ko kon ndox bi suñ ko toppee léegi waaye ci bi di leen sallallahu alayhi wa lu bu nekk ndax ki nga xam ne loolu yaa ko lan tur ki nga xam ne bu am kooku kon ko sant bu gën sant moom ko jox ko li nga ne moom ko yàlla def ci cër xam ne mooy ki gën bu kon ñu ngi yàngale foofu yi di ndokkee ñëpp ci weer bi di ñaan yàlla gàmmu gi ñu dem mooy yàlla ci xew ak jàmm te yàlla defal ñu si ci yeneen barab yi façon bu bëri ci nekk yàlla yàlla yóbbale ci jàmm nga màggal ci jàmm desuwaat ci jàmm ñu waa fekk fi jàmm barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko yóbbu ilal